Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. mbokki jullit yi mbokki talibé yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ziaré fi ci jumaay Serigne Touba Cheikhul Khadim comme ni ngeen ko gissé nak Cheikh Mouhamadou Mbacké digle njangum xasida niki suba ñu fass ko amal mbolo mi gis ngeen ci suñu ginnaw ak ci suñu kanam li wër jumaa ji yëpp bari na télévision Mawahibou TV ñewon fi ngir and ak yeen bis bi ngir bañ dara rawlenti leen ci Moustapha Gueye ci kaddu gi Euh, nara leen euh, da nara waxtaan ak gars yi yi nga xamante ni ñëw nañu ci bis bi boo ko defee ànd ak suñu techniciens yi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw ba tax ngeen mën ñoo gis euh, ñu leen jaajëfal bu baax xam naa ci kanam tuuti ak suñuy invité rek ñu waxtaan ak ñoom ci bis bi ak naka lañ ko waajale ففاله أمر كواه لجنة الخلد قد الأبو بان لنا معا بلا التباس كون لعبد الله خير الناس بان لجملة الملائكة الكرام كون رسول الله يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد أدي برم تبا ñoo ngi bi di ñaan ci Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Mountakha Mbacké yàgg fi bis bi mu ne woo muy bisum ndigal ne kaay leen jàng xasaayiti Serigne Touba yi def ko ngir jëmmi yàlla ñoo ngi ñaan mboolem ku fi ñëw yàlla na dajeeg ngërëmal borom Touba ñoo ngi ñaan ci Serigne Touba barkeb Serigne Mouhamadul Mountakha yàlla nañ ci dajeeg ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. te di leen joxaat seen wàccuwaay tey ñaanal yàlla def leen jàmm waa bis bi de ñu ngi ciy sant borom Touba bu baax te xam ne lépp Serigne bi la muy bisum xasida comme fas yéene koo dundale ni ko Serigne bi bëggee. ci xëy teel a ñëw maanaam euh, yendoo fee jàng xasida ci njàngeen boo xamante ni anam yu sell yu ko sëriñ bi bëggee fii ci kër Seexul Xaddim ci résidence borom Tuubaa bi euh, fii nii ngeen taxaw mboole mboolem jàngkatu xasida yi nga xam yi maanaam ci rajaskat yi lay doon ñi ci ëpp fii la ñuy jàngee fii la ñuy yendu di fi dundale bis bi ci kem ni ko sëriñ bi bëggee bis bi nag moom bisub xasida la bisub xasida nag wotu won ko ngir eh, ñëw di càmbal càmbal wala ngay def ci yeen yo xanti mo depp dëpp wut ak bis bi ñu ko bëgge dal moy bu ñëwee ñëpp dund la ko ci dundinu sel tok jang jàng xasida kenn ko am fay dal bo ñëwee bërb yi ñi ak yër gani ñëpp ngi fi kenn ku ci nek bo xolé sa morom way yi ram yëpp sa morom dina la mëna tek ci yoon wo xanti ni ko ni ko bëgge leen ko amee nonu lolu lañ ciy ñaan di takku nak di ñaan kep ku fi tew بنيان لثيام محمد المنطقة مياقفى عندك بير بس بيبني تنيك ولا تجارة من الناس يعمل دلنا وحنا تجارة جماعة دلنا لب بن لفيني أكبين كجماعة بين رفيق تنيك ولا سرين بن فيني به ده بين كجماعة أكتر كلام جماعة في يب بين لا ده كتير دكتور دامل بوكو دون خال لي في لي كبير كون لي توفي خسرين بلا سرين بيبوخي دون فيني sëriñ bi moom mi ngi fépp te fii ci ndigalam rek lañ fi nekk waaw noonu mu nekkee ci penk bi noonu la nekkee fii noonu la nekkee ca ca wet gënee te it fii ay ndawam lañ yu fi fi nekk di ko fi dundal te it moo nu fi teg kon ñoo ngi ñaan bi defal ñu ci ak bëggam rek. lañ waxtaan mbokk taalibe yi nga xamante ni ñëw nañ ngir jëfe si ndigalul Cheikh Mahamadou Mountakha ñu ngi ak taxaw ak suñu mbokk taalibe bii di sëriñ Mamadou sëriñ Mamadou foo bàyyi ko. maa ngi bàyyi ko ba soow Dakar. fas yéene digal jëfe waaw daanaka de mën naa wax ni loolu moo nu tax a jóg ndax hmm, waaw xanaa kontaan rek kontaan kontaan boo xam ne daal mën naan daal foo ko natt rek weesu na ko ndax daanaka maanaam ñëw bi ñu ñëw tam ñëw ñëw ñëw jaayante la boo xamante ne nii maanaam maanaam ni ñu ñëwee sax dafa kawe suñu jot ndax ci benn société lañ nekk di liggéey waaye ba ñuy ñëw coow li bari na lool waaye ñun moom dañoo ñëw rek waaw ah, après nag lépp luñ si mënti fekk nag moom garaawul waaye ndigalum ndigalal borom Touba moom yaakaar naa ne moom bu xasee ba jóg rawatina xasida ak képp koo xam sëñ bi diggam ak xasida ni mu mel ah yaakaar naa war na la jaral lu nekk waaw. waaw maam ku ci nekk rek ku ci nekk boo ñëwee rek na nga jàpp ne rek comme ma yow ni ñu taxawee di wax na nga japp ne rek señ bi mu ngi lay gisé nonu li nga xamanteni ni mom la diglé waaw nañ ci nekk rek muy njàngum xasida bi di waxat tamit ne manam, bu nañ nañ nañ bayyi di faral jàng xasida yi ngir intérêt wala dara lepp luñ jàng rek nañ ko delloo borom mi nga xamanteni ni mom moom nyi womat ngir ñu jàng ko moom moñu gëna xam suñu bop moom moñu gëna xam fi jamono tool lepp lu war ci ñun wala lepp lu gën ci ñun rek soobee borom Tuubaa dinañu ko defal waaw nañ ko sellal xam nga defee ko nim ko bëggee ca tenyu ca kanam te ñuy te ñuy te te ñu fexe bañ ko gàcceel bañ ko gàcceel maanaam di wane yay comportement yoo xam ne dañuy sikk murid yi naan waaw maam comme ni ko comme ni ko ñenn ji di waxee rek rawatina ñun waa ëxlu xasida li ñenn ñi di yëkkati di ko teg suñu kaw nañ ko sellal rek ba nga xamante ba nga xamante ne bu soobee borom tuba maanaam dina nekk ndamal sëñ muntaxa nekk ndamal ñun mbooleem waa ëxlu xasida. jël couleur bis bi. fas yéene jëfe ndigal li nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha digal na ko mboolem mbokk taalibe yi ñu taxaw ak suñu jëwriñ ji nga xamante ni bàyyi na yitteem yëpp ñëw ci bis bi jëwriñ. Euh, tur bi waaw euh, ñu ngi koy wax euh, Matar Fall. Matar Fall ban yëg-yëg nga am ci bis bi nga xamante ni Cheikh Mamadou Mountakha. waaw yëg-yëg boo xam ne maanaam yëg-yëg bu kawe bis la boo xam daal maanaam daal dañuy sant bu baax a baax ndax bis la boo xam maanaam bis bu kawe la si ñun ndax ñu moom suñu yitte mooy nekk si xasida yi si yëngu. loolu rek mooy suñu yitte amuñu benn yitte vraiment lu du xasida Sëriñ Tuubaa ak liggéey Sëriñ Tuubaa rek mooy suñu yitte loolu moo tax tey dañoo am mbégte am kontaante ñëw fii euh, ndigal li nga xam ne suñu Muntaxaa moo ko joxe ñëw fii ngir ma feeñee suñu yéene. waaw fi mooy baasu sëñ Moussa euh, sëñ Moussa Mouhamed Mbacke mu euh, mu sëñ Mbacke Sow loolu. wax dëgg yàlla ñun waa Darou Khoudoss incha allah suba ma fii lañ koy teewale incha allah si kàttanu yàlla. mais ñooy ñooy ñooy ñooy siyaare suñu Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ndax sag la sag la sagu sagu lislaam la kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi mu gën fee yàgg loolu te ànd ak wér di ñaanal suñu sëriñ suñu sowa Mamadu Mbàkke li nga xam mooy suñu yaakaar tey ëllëg mu yàgg fi loolu te ànd ak wér si bàkk suñu Tuubaa waaw soññe bi mooy def mooy di di commencé sama bopp di soññ sama bopp di soññ ñëpp bis la boo xam ne daal képp ku ñëw boo bàyyee xel comme sëñ bi ma ndigal ma ni mu ko ni ko waxee booba bàyyee boo si amee pasteef am si yéene am si pas-pas lépp loo xam ne sëñ maam digle na ko rek ah, di si am di kawe sa ñett kon maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi soññi samay mbokk taal bi soññ sama bopp képp ku ñëw rek li la fi indi ah, ah, maa nga xam ko te jëm ko jëfee mooy jàng xasida douze daal la sëñ bi woote jàng xasida sëñ bi woote loolu daal Euh, laay soññee sama mbokk taal ñëpp